wax ni ñi ngi sant yàlla ci jataay bi nga xam ne waxtaan nañ ci lu ama am solo ci réew mi muy lu jëm ci mbay mi rawatina li ñuy dëgmal muy campagne agricole bu 2024 di jaajëfal ministre bi nga xam ne moo yor mbirum mbay mi ci organisation bi di gërëm it ñi fi teew ñëpp organisation yi organisation paysannes yi secteur financier bi ñëpp di leen gërëm ci seen contribution yu am solo yi ndaje bi nag am na ay ndogal yu ci jibee ñu faram-fàcce ko ci ay poñ poñ bu njëkk bi mooy li jëm ci bor bi nga xam ne nguur gi ameloon na ko ñi nga xam ne ñoo yëngatu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 ak ñi nga xam ne ñoo yor mbirum lémp ci réew mi ñoo ñëpp mu dajaleen ñu waxtaan pour ut ay solution ci li nga xam ne opérateurs yi ñu ngi koy dund te dara tegu leen ko lu dul yéex bi nga xam ne état bi yéex na ko fay bor bi ba tax ñu tegal leen ci ay intérêt ñu war koo fay ci bank yi waaye it waa lempo teg leen ci ay daan ñu war koo fayit loolu jox nañ ko ci ndigal mu dajale leen ñu waxtaan ut ci ay solution nu mu gën a gaawee ci li jëm ci wàllu ji bi ji ak engrais jox nañ ndigal jëwriñ bi nga xam ne moo mbirum mbay mi mu jël ci ay matuwaay pour que ci ni mu gën a gaawe ñu séddale li nga xam ne mooy intrant yi muy jiw bi ak engrais bi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 jox nañ ko ci ndigal pour mu liggéey ak ñoom ba ñu mën a jël ay matuwaay ci aar lépp lu jëm ci mbay mi rawatina nag ceeb bi nga xam ne léelée picc yi dañ dañ ci xaw a am luñ ci yàq lu bëree bëri bëri ñu jox ko ndigal it mu war cee ànd ak jawriñ bi nga xam ne moo lépp lu jëm ci encadrement baykat yi ak ci nga xam ne moo yor l'armée bi mu ànd ak ñoom ñu am lu ñuy liggéey ci fexe ba ñi ñu woowee ayants yi mooy ñi nga xam ne ñoo yelloo mbir mi ñu mën leen identifier ci loo xam ne du am lu ñuy laam-laame loolu nag nañ ci ànd ak service yi nga xam ne mooy service déconcentré yi ñu jox ndigal ba léegi mu war cee ànd ak ministre des finance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 waaye ñaare gisuñu jeexital bi ñu fexe ba am ay charte yu ñuy teg ba képp kuñ ñu koy jox rek mu leer ni ku ko yelloo la ku ko war a am la rawatina nag mu gën a gaawal séddale matériel agricole boobu fële ci vallée du fleuve Sénégal nga xam ne potentiel bi fa am ci wàllum mbayum ceeb ba ci wàllu maraîchage potentiel bu am solo la ñu wax ko tamit ni am na ay programme yu fi am programme yooyu ay milliards yu dugg na ci ñu waroon ci def loo xam ne dafa jëm ci jënd matériel agricole ak def ay magasin de stockage ndax mbayum Sénégal bokk na ci li ñu gën a sonal mooy stockage amuñu capacité stockage liy yàqu ci mbay mi bëri na ak li nga xam ne ci wàllu ay euh, chambre froide la ba léegi day dugg ci stockage bi muy programme Intermac ak Sismar jox nañ ko ci ndigal ñu def li ñuy wax audit ci tubaab mooy ñu saytu ko ba xam mbir mi naka lañ ko jëfandikoo jëfandikoo ak fan la dugg ci lu jëm ci séddale bi ba léegi jox nañ ko ndigal mu ànd ceeg jëwriñ bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci coopérative ak encadrement paysan ak ki nga xam ne moo yor l'armée bi ñu taxawal ay commission yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci joxe intrants yi lënkaloo ci ak jëwriñ yi nekk ci région ak département yi muy les autorités administratives waaye ñu gaawal ko ba gën saa gudd le 13 mais bi ñu ne lañ ci war a def def nañ ko ñu jox ko ndigal pour mu taxawal ay chart waxoon nañ ko léegi yoo xam ne lépp loo xam ne lu jaaduwut la ci ni ñuy séddalee dañ ko teelal gis war koo mën a jubbanti ñu wax ko it mu xool ay euh, pexe yoo xam ne ñi nga xam ne dañ leen di jox subvention yi ñu mën koo def ci ay liste liste yooyu ñu xamal ko Sénégalais yépp ba kenn ku nekk xam ni fi mbir mi war a dem fa la dem ñi ko war a jox yépp jox nañ leen ko te amul kenn koo xam ne yellowul ko te jox nañ la ko bu ko defee subvention bi dina yegg ci baykat bi waaye du doon loo xam ne day nekk ci yeneen loxo ay nit di ko récupérer di ko jaayaat wala di ko di ko génne réew mi li jëm nag ci li ñu doon tudd léegi muy fexe ba am ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu bayee ba pare nañ ko mën a denc ba du yàqu wala ñu koy tuur ci mbedd mi joxe nañ ci ay ndigal ki nga xam ne mooy jëwriñ bi yor mbirum mbay mi mu fexe ba def recensement ànd ceeg ministre bi yor l'armée bi lépp loo xam ne lu ñu amoon la ci ay seco ak ay magasin de stockage ñu recensé ko ak ministère bu mu mun a bokk daal koy defaraat su dee am na ci ay ñollu ñollu ba mu mën a jëriñ campagne agricole bii di campagne u 2024 li nga xam ne nag mooy ndeyu mbill mi ndax ko wax mbay wax kap koppar wax xaalis li nga xam ne nag moo war a fexe ba ñu dajale moyens yooyu nga xam ne moo moyens financiers yooyu nga xam ne moo ñu war a yombalal liggéey bi jox nañu ndigal ministre bi nga xam ne moo yor finance ak budget pour mu jël matuwaay yépp ànd ceeg mi jëwriñ bi nga xam ne moo yor mbirum mbay mi ba nga xam ne ñii nga xam ne ñoo yëngatu ci financement campagne agricole bi mu leen dajale ñoom ñépp ñu waxtaan ci kenn ku nekk lan nga ci war a mën a def te kenn ku nekk ñuy xaar ci moom effort boo xam ne effort bu particulier ci exercice 2024 bi jox nañ ko ndigal it budget 2024 bi mu dugal ci li nga xam ne moom la ñu annoncé ni moom mooy budget campagne bi muy 120 milliards yi nga xam ne ci ndigalu président de la république moom la ñu jàpp dugal ci campagne ren bi ñu mu mel ni yokk nañ ci 20 milliards boo ko nattee campagne u daaw bi nga xam ne 100 milliards la woon ñu jox ko ndigal mu waxtaan ak li nga xam ne moom la ñu séq ak yeneen réew ci cadre UEMOA muy BCEAO pour que yi fi nit ñi soulever léeg-léeg jafe-jafe yi ñuy am ndax mbay mënuñu ko financé ci euh, anam yu bokk yu niroog yeneen secteurs yi ni sit financer industrie ak ni ñuy financer secteur tertiaire mënul bokk ak mbay ñu jox ko ndigal nag mu waxtaan ceeg li nga xam ne moom la ñu bokk muy suñu kilifa ci wàll boobu muy BCEAO ba ñu xool yan solution la ñu mën a am ba ñu yombal règle yi nga xam ne moom la ñuy financer mbay mi ànd ak nag yi nga xam ne moo nekk suñu programme ci politique foncière nu ñuy def ba baykat yi mun a moom seen suuf am ci tiitre foncier am ci bay ba war ko mën a tayle pour ñu lebal leen xaalis bu ñu liggéeyee wax nañ ko it mu lënkaloo ak ministre bi nga xam ne moo yor lépp lu ñuy tuddee économie sociale et solidaire muy xeetu koom-koom boo xam ne la muy jublu du dajale ay bénéfice mais fexe ba li nit ñi di liggéey jëriñ leen balaa muy jëriñ keneen ak leneen ñu ne ko mu ànd ak kooku ñu lënkaloo pour lépp lu jëm ci microfinance mooy ñi nga xam ne banque yu ndaw ndawaan yi di finance la petite économie waaye sax li ñuy tuddee la finance islamique nga xam ne am na ci ay possibilités yu rëy rëy rëy am na ci ay xeetu produit yoo xam ne dañ koo jagleel mbay spécialement mu xool lool nu koy ñoŋalee ba mun a ñëw yokk liggéey bi ñuy def gën a yombal financement bi parce que su financement amee rek lu bëri mun na yomb ci li jëm nag ci moyen logistique mooy jumtukaay yi ak nuñ koy jëfandi nuñ koy utiliser ba ñépp mun cee euh, jot jox nañu ndigal jëwriñ bi nga xam ne moo yor mbirum mbay mi pour que li ñuy wax au niveau local mooy ci base bi ci village yi ci communes yi ci département yi ñu gën a def coordination certainement jaare ko ci coopérative yi ba nit ñi mun a dajale mooy gën koo mun a utiliser de manière rationnelle ci li jëm nag ci li ñuy wax rendement bi ndax lu ñu war a jàgg jooytu la mooy fu ñu waroon def 10 tonnes à l'hectare euh, 10 euh, tonnes à l'hectare peut-être ñu ngi ciy def di kilos à l'hectare nu ñuy def ba yokk rendement boobu jox nañu ndigal jëwriñ bi nga xam ne mbirum mbay mi pour li nga xam ne mooy lu jëm ci euh, yokk capacité suuf si te loolu mi ngi jaar ci li ñuy wax phosphatage muy engrais bi mu jël ci ay matuwaay yu mat sëkk rawatina ren ji waaye it mu farlu ci nu ñuy def ba jiw bi waaye jiwu qualité la ñu wax li ñuy wax semence certifiée nga xam ne Sénégal ñàkk nañ ko ay ati at ci gannaaw lu ñuy def ba reconstituer ko ci ni mu gën a gaawee te loolu moo cee liggéey ak kuréel yi nga xam ne dañuy gëstu jëm ci loolu lu mel ni ISRA ñu daaneele nag ci li nga xam ne mooy lii ñu wax nii yépp nag mu mu bañ a doon rek discours ak ay dossiers yoo xam ne ay rapports yoo xam ne dañ koy dugal ci tiroir moo tax ñu jox ndigal euh, ministre secrétaire général du gouvernement nga xam ne moom mooy coordonner sous la supervision du premier ministre l'action du gouvernement mu saytu liñ fi wax yépp ci ay poñ te di ma ci defal rapport régulièrement ñu xam fan lañu toll ci application bi di ko santit mu lënkaloo ak secrétaire général présidence de la république di naataangoom ci beneen boor bi pour que ñu amal ci anam yu gën a gaaw li nga xam ne mooy conseil supérieur d'orientation agro silvo pastoral muy rendez-vous bu am solo ci wàllu mbay lii mooy tënku ndaje tey bi ñu ngi dellu sant yàlla di gërëm ñépp ci seen teewaay ak seen taxawaay di leen souhaiter un bon retour chez vous asalaamaaleykum wa